liggéey bii tax nag ñu daje fi tey sëriñ Mouhamadul Muntaxa daa wax ne sunu borom daa waxoon ci alxuraan ne amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi mooy yonent yi ci boppam yonent bi ci boppam yonent bi ci boppam day gëm boppam. day gëm boppam. doog a mën a jariñu ci boppam. doog a mën a jariñu ci boppam. Serigne Sonia bu daan wax ne. Serigne Sonia bu daan wax ne. boo gisee Serigne Touba. boo gisee Serigne Touba. daan jàpp ba noppi. daan jàpp ba noppi. di ci barkeelu. di barkeelu ca njàpp ma. nee na mooy njabootu Serigne Touba gi. mooy njabootu Serigne Touba gi. kenn ku ne. kenn ku ne. yaa ngi sàkku sëñ tubaa ci sa morom. yaa ngi sàkku Serigne Touba la tax sëñ tubaa daan ko def. da ko firi woon bis. daa waxoon ne. daa waxoon ne. li ñëpp gis ci li jëm ji. sama jëmm ji ba daw jëm si ci. loolu la gis la boppam. nee na loolee nag la jëmm ji gis ci boppam. te bëggut ku ko ci ëppale. Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne. Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne. liggéey bii mu santoon. liggéey bii mu santoon Baye Fall moo tax moom itam. moo tax moom itam. joxe addiya ñëpp la war. joxe addiya ñëpp moo tax oto yii mu jël ko. moo mu jënd oto yii. muy ñeenti oto. def ko addiya sëñ Touba. def ko addiya sëñ Touba. tabbee ko ci biir liggéey bi. tabbee ko bi. nee na tuyaaba ji ngeen ci am. ci liggéey bi. la ci bëgg am moom it. nee na moom it ci la bëgg. mu jënd ñeenti oto. noo tax mu jënd ñeenti oto. jox leen ko jox leen ko. def ko ci biir liggéey ngir ko nag addiyaam ci biir liggéey bi Cheikh Rafal bi. ndax nee na war may dëkk bi. da koo ñor da koo ñor lool ndax sëñ Tuubaa da koo ñaan ci mat labul faw sëy ni wajhal xarimana xariman amina wa kun bi xifsihi kafidan damina nee na kon wóor na ko ne dara moom munta am ci dëkk bi lu weesu jàmm li fi sëñ Tuubaa bëggit sunu borom defal na ko ko ba nag ndax da nekk ci biiram du ko yëg. nit bu nekkee ci biir mbir mën na koo bañ a yëg. waaye Touba de li fi am. li fi am. ci jàmm ci jàmm. amul fenn ci àdduna. ku ko génn xam ne amul fenn ci àdduna. loole nag. loolee nag. sëriñ bi dénk leen ko. sëriñ bi dénk ko Baye Fall yi. ngeen di ko saytul. ngeen di ko ko saytul. nam ko bëggee. nam ko bëggee. kon eh, na ngeen sant nag bu baax. te xam ne la alxuraan waxoon ne. la yastawil qaaxidoona. laa yastawil qaaxidoona. minal moominiina. minal moominiina. xayra uli darari wal mujaahidoona fi sabilillahi bi amwaali wa anfusihim fadlallahi mujaahidiina bi amwaalihim wa anfusihim alal xaahidina darajatan wa kullan waxdallahi usna kon yéen ñi nga xam ne yéen a futteeku jaayante seen guddi ak seen bëccëg jox ko sëñ Tuubaa mënu leen a yam nag ak ña toog ca seeni kër kon loolu taw feex rek la sëriñ baa ngi leen di sant te xam ne liggéey bii itam te xam ne liggéey bi itam liggéey bu tàmbali la liggéey bu tàmbali la te xam ne nag du dàkk ba àddunay tukki ba ci suñuy sët ba ci suñuy sët nii la war a nii rek la war a wëyee ndax liggéey bu diis la moo tax nag kon moo tax nag kon mi ngi digal taalibey sëriñ Touba yëpp na ci ñëpp ànd ak ñoom kenn ku ci ne sàmmul sàmmale leen ko. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. defar sa jëmm. defar sa jëmm. ba kenn bañ laa jubanti. ba kenn bañ laa jubanti. ñi nga xam ne nag. ñi nga xam ne nag. defaru nañ ba noppi. defaru nañ ba noppi. ku am kattanu xalaat. am kattanu xalaat. nga jàppale leen ci. nga jàppale leen am kattanu jëf. ci sa alal. ci sa alal. nga dimbale leen ci. nga dimbale leen ci. joxe sa ndax joxe sa alal. dara ëpp ko tuyaaba ci yoon wi. te Serigne Touba waxoon na Cheikh Issa Diène na te Serigne Touba waxoon na Cheikh Issa Diène na ko. ba amoo taalibe bu nanguwut a liggéey. ba amoo taalibe bu nanguwut a liggéey. mu ne ko ko amee da bëriwut. mu ne ko su ko amee da bëriwut. mu ne ko boo ko amee sa wàcc mu ne ko boo ko amee wàcc ko. ndax taalibe bu murit. ndax taalibe bu murit. bu nanguwut a jox sëriñam addiya. bu nanguwut a jox sëriñam addiya. nanguwu koo liggéeyal. nanguwu koo liggéeyal. ab sëriñam mënu koo jëriñ. mënu koo jëriñ. kon loolu képp mooy li ci am solo. sëriñ kon sëriñ bi nee na mi ngi digal taalibe yëpp. ku am kattanu mën a jox oto. ku am kattanu mën a jox Baay Faal yi ab oto. na ci joxe ndax du doy. ndax na ci joxe ndax du doy. liggéey bi daa rëy. ndax liggéey bi daa rëy. ku amul kattanu mën a joxe oto. ku amul kattanu mën a joxe oto nag. mën a joxe addiya. te mën a joxe addiya. ju sax ju sax. di ko ci def di ko ci def. <laughs> na ko ànd ñoom. na ko ànd ak ñoom. ndax liggéey bi moom. ndax liggéey bi moom. xam ngeen ne doole moo koy def. xam ngeen ne doole moo koy waaye kattan na koy def. ndax mbooloo mi kat mat na ñett téeméer ak fukk ak ñett kon loolu lim bu diis la te loolu limu baatin la ci yoon wi ndax Serigne Touba ba muy dem ca géej gi waa ahlu badri jam àndaloon mooy lim boobu ndax seex Abdoul Ahad waxoon na ne képp ku fi nekkal Serigne Touba ña àndoon ak sëriñ bi foo nekk ñoo lay sàmm. képp ku bëgg a jëme ci yow lu noona. képp ku bëgg a jëme ci yow lu dul noona. ñooy dox sa diggante ñooñe ñooy dox sa digganteeg loolee. kon nag ñu ngi ciy soññi ñëpp. taalibe yëpp. sëñ Abdou Lahad Ka mi itam. bi ma ko ko yëgalee. bi ma ko ko yëgalee. jox ko ci ndigal. jox ko ci na ko yaw kat yaa jiite maire bi. yaa ci war a jiitu kon. yaa ci war a jiitu kon. sa wa sa jëf moo ci war a njëkk a tàbbi. taalibe yëpp ànd koog yow. fa saasa la ko wax ne ko. kon moom it bi sosoo ci. kon moom it bi sosoo na ci. weer wu nekk weer wu nekk. junniy litre junniy litre yi gasoil. bu ko defee muy dem ci oto yi. kon nag loolu. noonu mu ko defee. mu ko defee. ni la ko ñëpp war a defee. ànd koog ñoom. kon ñu ngi sant bu baax.